info point net seen info international di leen jaajëfal bu baax baax di amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen si seen jotaayu seen info comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ma ànd si ak sama naataango bii di buux si ko mën doofen Diouf ñu fas kee na nga xamante ni nii moo nekk actualité yi gën a yi gën a fës si jamono bi ñu toll buux si dama lay bàyyi ñu nuyoo rek laataa ñuy tàmbali yooyu les informations. waaw waaleykum salaam soxna Sel maa ngi lay suñu cadre ak internautes yi nga xam ne saa su ne ñu euh, bàyyi xel ci euh, suñu différentes plateformes yi. di am mbégte bu baax rek kon euh, di dikkaat ak ñoom ci jotaayu Sene Info nar cee faram-fàcce nag ponk yi nga xam ne gën a fës ci lii di actualité bi. a jërëjëf bu laataa ñuy tàmbali rek xam naa dañuy daal di jaale waa Yoff ginnaaw ba kooku nga xamante ne nii ñu koy woowee imam Chérif. mu nekk Cherif Mouhamadou Bachir Lahi nekk nekk sët si Seydina Limamou Laye moom nag papam ñu ngi koy woowee Babacar Laye di ko di ko di ko jaale di leen jaal ñoom waa mm-hmm. Yoff baax a baax mm-hmm. di ko ñaanal yàlla rek mu xaare ko àjjana kawe mm-hmm. si loolu buur xam naa dañuy tàmbali suñu waxtaan tey nag dinañ ko mën nañoo wax ne si ñaari point lay doon bu si njëkk mooy euh, jéye di nga xam ne manifestation bi fa jot am te ñu jot fa ñàkk nag ay bakkan loolu yëpp lu ko waral dinañ si ñëw du ñu jógee foofu tamit ñëwaat si discours Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii amaloon na ko démb ñëwaat na nag si wàllum procès bi nga xam ne amaloon nañ ko ma laata mën nañoo wax ni sori aussi mais jot na cee tout tuuti leeral si loolu tamit xam naa si wàllum politique boobu. si la ñuy waxee si conférence de presse bi nga xam ne tamit ki di Aïda Mbodj amaloon na ko wàllum dialogue bi ak li ni mel ñëw si ponk yu bëri si wàllum politique. si loolu pour xam naa dañuy njëkkee waxtaan na si problème bi nga xam ne waa ñu koy dund actuellement muy benn terrain bu six cent six mille mètres carrés suma jumul moom lañ fa doon euh, xëccoo ba gis nañu démb nag konte nañ fa ñaari nit yi fa jot a ñàkk seen bakken ñetteel bi nag maanaam wóorul ñu ngi naan ne dafa gaañu gaañu bu miti konte wuñ ko si moori di ko ñaanal yàlla xanaa mu tane ak jàmm ba lim si wax yàlla bu mu ci am si lool nag gis nañu kii di président Macky Sall woote na démb maanaam appel d'urgence indi si ab waxtaan bi nga xam ne amal na ko ak waa Ngor jël na si nag ay décision yoo xam ne foog nañ ne dina indi daal te dina tax boobule boobule problème daal di jeex moom la ñuy ñaan ñun ñëpp hmm. xam naa décision yooyu bu dama lay bàyyi nga ñëw si ak problème bi nga xam ne moom la Ngor amee mooy ñetteelu manifestation bi nga xam ne mu ngi am si boobule procès si boobu les problèmes waaye jàpp nañ tamit kii di président décision bu mu jël démb ak appel d'urgence bu mu def jàpp nañ ne nekk na loo xamante ni su ko defoon avant euh, mën nañ jàpp ne duñu accès si ay euh, mm-hmm. doomi aadama yi nga xam ne mujjee nañ si ñàkk seen bakkan bu effectivement asel fi nga daanele sax xam naa foofu lay euh, njëkkee yaakaar naa bi mu amee ay manifestation rek ba mbir mi am ampleur mi am mm-hmm. bu ñu li mu def peut ko teeloon def mën naa am duñ ci yàgg ci ba ñu naan ay tey ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan coow li li ko waral comme ni nga ko waxee ab terrain la bu six mille mètres carrés boo xam ne kon gendarmerie ñoo fa bëggoon tabax li nga xam ne comme moom mooy ab ab brigade wante nag mu fekk euh, ñi nga xam ne ñooy population bu yoofit it ne dañ fa bëgg a def ab lycée bi loolu amee nag xëccoo am seen diggante euh, ba fi mu mujjee euh, manifestation am na amati ay waxtaan amoon si bañ ñemee ko ñu yaakaar ne te tekkaaral dina am wante rek nag démb li ñu naan situation bi dafa dégénéré loolu lañ fa gis maanaam ay mbir yu waar mais situation bi euh, bëri loolu am nañu annoncé ñaari mort am na ñu naan benn la peut-être da ngay dégg ñu naan benn la ñi ñu ngi naan ñaar euh, wante daal ak fu nu mu mënti demee rek bu ñu demee ba naan bakkan bi rot na moom rek euh, jii am benn bakkan kese bu tuurul waaw bu rot rek dafa ëpp benn bakkan rek c'est un c'est bakkan bakkan boo xam ne dafa dee ci ay circonstances yu mel noonu jiitu réew mi nag euh, comme li ma wax rek euh, li ni mel peut-être baax na mu woote euh, démb am na ay dignitaires yoo xam ne kon teew nañ foofu ci palais ci guddi sax teew nañ foofu le ca palais mu seq ak ñoom waxtaan bokk na ci ki nga xam ne moom mooy maire bu Ngor dogal ya nga xam ne wax nga ko jël na ko moom mooy fi mu nekk nii kon boobu le terrain dañ koy xaaj ñaar li nga xam ne moom mooy 3000 mètres carrés waa Ngor Euh, lycée bañ bëgg tabax mm-hmm. ñu tabax njiitu sax nee na état moo ko ko tabaxal kon mm-hmm. euh, beneen euh, trois mille mètres carrés nag brigade bañ bëgg a def ñu mën ko faa def ndax yaakaar naa ñoom waa population Ngor donte bëgg nañ lycée mais it lu baax la mm-hmm. te bu fekkee ne sécurité bi fa war amu fa yaakaar naa duñ tala jàngi duñ tala def leen duñ tala liggéey kon nag sécurité dafa nekk lu am solo ci li nga xam ne moom mooy mooy moom mooy gox bu ñu jógee it ba nar faa def li nga xam ne moom mooy brigade yaakaar naa it euh, liñ fa liñ fa liñ fa war a def la euh, léegi daal alhamdulilah la ñuy wax comme que trouvé nañ benn solution kon alhamdulilah daal la ñuy wax te di ñaan yàlla it mu yem fi di ñaan yàlla yàlla bu coow yi ni amati ba sax kon fi mu nekk nii ñu ci déploré ñu ci déploré li nga xam ne kon moom mooy euh, benn wala ay nit yu si ñàkk seen bakkan soxna si dëgg la bu nekk na lu am solo décision bi nga xam ne moom la président jël mën nañ jàpp ne nag Euh, dinañ am satisfaction bu baax jàpp naa ne lu ni mel lu si mel ni ay manifestation yu ñu defoon du ci am président sax dem naa di leen promettre beneen cinq mille mètres carrés bi nga xam ne dina leen ko jagleel si loolu yëpp foog naa ne jàmm dina mujjee am ndaxte démb dafa tàngoon torop mhm. diggante population Ngor ak euh, suñu takk der yi waaw euh, affaire bi ba affaire a laalaale yoofan ah, ak wakaam yëpp parce que ñoom population kii lañ peut être bugguma bugguma tudd xeet wala may kii ñaakaar ma daa euh, dañoo nekk population boo xam ne daanaka benn lañ booy xool ab communauté daa xam ne benn lañ moo taxit bi mu foofu gis nañ ne mbir mi laal na ba wakaam yoof it nga xam ne moo ngor ñoo taxaloo mm-hmm. foofu it nemmeeku nañ fa ay nemmeeku nañ fa démb ay ay ay manifestation comme li ma wax rek ñu ngi ñaan daal euh, yi ni mel yàlla bu mu amati te te te suuf moo garaaw mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi maanaam yu mel ni bu amee comme jiitu réew mi ni mu nii nañ ko teel def mm-hmm. nañu teel a jël décision teel a woo euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi seq mbir mi waxtaan ak ñoom trouver ay solution ba ñu bañ a yegg si nii quoi. si ni mu gën a gaawee moo gën mhm. parce que stade bi ñu dem ba ñu ne benn bakken wadd na si ñaar am na sax ñuy naan d'ailleurs ñett la mais après dégg naa ñu ne ñetteel bi euh, mu jéewu la gaañu mais dafa nekk si état bu critique loolu yëpp pour éviter que jàpp naa ne nguur gi waroon na see teel a jël décision lii mhm. tamit bokk na si loo xamante ni dina pousser jeunes yi à ce que ñuy naan tànk a bi duñu am ñu bëgg parce que gis nañu manifester nañu benn yoon faale wuñ deuxième fois amuñu dara troisième fois ñu manifester nit dee na si ñu doog a am lu ñu bëgg est-ce que tamit loolu bokkul si loo xamante ne nii dina motiver jeunes yi a ce que prochaine fois ñu am dara bu ñu jàppee du ñu bàyyi dañuy naan tamit tant que xeexuñu du ñu am lu ñu bëgg kon loolu tamit nekk na loo xamante ni muy état bi di euh, di ñi nga xamante ni autorité yi war nañ seen bàyyi xel bu baax a baax mm. di bàyyi askan wi xel tamit si nga xamante ne nii si ay manifestation ak li ñu mel mu bañ fee amati surtout li nga xam te ni jot na fee xew démb nekk lu métti li nga xam te ni ñu koy déploré ñun ñëpp. Mhm. si loolu pour xam na bu dee amoo lo dolli si histoire Ngor boobu rek ñu daal di jàll suñu deuxième point nekk euh, discours bi nga xam te ni moom Ousmane Sonko amaloon na ko démb di naan di naan nag di si yëkkati ay kàddu maanaam kàddu yu bëri euh, jotu see tontu sax ki nga xam ne moo di. Barthélémy na ndaxte ñu bëri loolu lañ doon xaar à ce que mu wax ci mais gis na ne mu ngi wax mu ngi dem bay naan am na ñoo xam ne dañuy ñëw si man di wax ak man te leer na ma ne bu ñuy dugg fenn di ma woo téléphone dañ may enregistré pour mën a am lu ñu yóbbu wax jooju nag euh, ma xamuñu mënuñoo wax kii la koy jagleel mais sénégalais moom même bu ñu sénégalais xel tamit xel kese la. muy firnde la tamit candidature am en 2024 di wax ne tey la gën a nekk candidat maanaam décision bi nga xam ne. procureur juge bi mu jénn ko jël si moom mën nañ jàpp ne kii Ousmane Sonko compté wu ko te jàpp nañ ne décision amul changement du mën a bokk si élection présidentielle yu jëm yu vingt cinq février deux mille vingt quatre kon jàpp nañ ne euh, dañ doon xaar moom Ousmane Sonko mu exprimé wu si mu ne si day dem def appel wala li ñu mel waaye dégg ñu benn yoon mu wax si li mu wax daal mooy xam ne ni euh, dina bokk si élection deux mille vingt quatre yi te kenn mënu koo tere mu bokk si mu ngi woote waat tamit waa Pastef mu ngi leen di woo si benn ndal parce que mu ngi naan waa Pastef lépp lu ñuy def dañ siy def dañ siy def à benn émotion dal si même manifestation bi nga xam ne waa F24 woote nañ ko Obélisque euh, le vendredi mu ngi si woo tamit à ce que ñu ñëw mais euh, message bu mu joxee dafa am solo trop mooy li ñu daan remarqué à ce que bu beneen euh, beneen candidat ñëwee ñu di leen yuuxoo loolu yëpp. Ousmane Sonko mu ngi naan à ce que ñu bàyyi ko ñu bàyyi loolu te képp ku fa teew ñu jàppee ko ñu jàppee ko maanaam ñu jox ko respect bu loolu mu ngi leen si woo te fekk te jàpp naa tamit message boobu nekk na message boobu tamit dafa am solo muy respect yi nga xamante ne ni mu ngi si woo waa Pastef te jàpp naa tamit ne dinañ leen si wuyu laataa loolu tamit euh, manifestation bi ñuy wax vendredi tamit xamaguñu ndax dina am ndax dina ko accordé wala ndax dina ko refusé loolu tamit xamaguñ si lu bëri mhm. waaw soxna Sall comme ni nga ko waxee rek ab déclaration la boo xam ne ñu ngi ko doon xaar ñu ngi ko doon xaar gannaaw bi nga xamee ne kon procès en appel diggam ak maam mbay Niang amoon na ba nag ñu daan ko six mois avec sursis te it deux cent millions yi nga xam ne alamaan la woon mu war ko jox ki nga xam ne moom mooy moom mooy maam ngir daal ngir ndàmpaay. ba léegi dañ ko maintenir wante tegal ko ci contrainte de corps maanaam bu ko joxul euh, mën na caa dem mën na caa dem euh, kaso moom nag euh, bi mu jëlee kàddu démb comme ni nga ko waxee rek njëkk na jël kàddu sax wax ci affaire mbir ma xew Yoff déploré ko ŋàññiwaat nguur gi ni ñuy doxalee bi mu ñëwee nag ci li nga xam ne moom mooy boobule boobule procès jàpp na ne ba léegi daal ni nga xam ne mooy Macky Sall wax na ko Macky Sall ak juge parce que moom dafa jàpp ne Macky Sall benn groupe juge dañoo am projet boo xam ne la euh, neenal éliminer ko mu bañ a bokk ci li nga xam ne moom mooy candidature moom mooy élection présidentielle bañ caa nekk euh, candidat kon moom loolu la jàpp ba tax nag euh, mu ne daal loolu daal jàpp ne moom peine perdue lay doon suñu mais nag moom maanaam nee na amul lu ko mën a tere mu doon candidat ci lii di élection présidentielle bi nu jëm dem na sax ba ne maanaam moom wala moom moom ñi àndal am nañ ay moyens yoo xam ne mën nañ rendre réew mi ingouvernable ñu fexe ba ñu bokk ci euh, ci ci yooyu élection nee nañ ñoom am nañ ay pexe yoo xam ne mën nañ def ba réew mi daal dara du fi doxati euh, loolu nag dañuy ñaan yàlla buñ si yegg ndax situation yooyu moom ñu ci réew daal bëgguñu ñu yegg ci yooyu le ci yooyu le situation wax nga ko fa wax na fa loolu waxit woote jëmale ci li nga xam ne woowaat na nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militants ñu gën a taxaw effectivement wante it concernant manifestation boobu nga wax euh, bu li nga xam ne moom mooy euh, F24 bi ñu war a amal euh, pour man de wax jooju mu wax mbirum Barthélémy Dias bi moo tax mooy lim naan maanaam bu benn leader ñëw ñu koy kii wala ku ñu laal nañ ko respecté affaire yooyu pour man Barthélémy Dias moo tax moo loolu te ak wax yeneen wax rek ñu wax si biir xam nga mën nga wax ak nit ki te doo ko tudd indirectement même Barthélémy Dias sax booy gis wax na ay waxam te it ñëpp xam nañu Ousmane Sonko lay waxal te booy sax daana ko du ko cité nommément quoi dañoo naan lii lii alors que ñëpp xam nañu Ousmane mais moom it boo gisee yi wax yëpp di jëmale ak ak ak li xew gannaaw waxu waxu Barthélemy bi wax waxu ak moom directement mais ñëpp xam nañ ne Barthélemy lay waxal ñëpp xam nañ ne tey dafa peut-être dafa boole Barthélemy euh, ci ñi nga xam ne peut-être jàpp na ne euh, dañ koy fexal wala dañuy bëgg leen daal wala ñu ay jiil ci suuf ak yéni mel démb daal euh, bi lee discours la amal comme ni ko wax rek wax ne carrément daal bi lee élection moom kenn mënu ko tere bokk ci nee na daal ay diversion la mu ne verdict diversion la nee na verdict boo xam ne yëngalu ko mhm. nee li nga xam ne daal atte ko fa mu ne verdict bu ko yëngalul la waawaat nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militants bi sympathisants partisans ak ñi nga xam ne dañoo gëm projet am waat na leen ngir ñu taxaw euh, temm euh, ngir daal kon euh, yooyu la élection moom jàpp ne da cee war a da cee war a bokk mu cee waaw loolu la Ousmane Sonko moom ku nekk xam na ni taxaw na taxaw na pour pare si pare na bokk ci élection yi jëm parce que comme dem na bay naan dara mënu ko teree bokk euh, dañuy xaar rek xool ba xam bi le verdict bi nga xam ne teg nañ si kawam ndax dina dey wala ndax du dey démb sax gis nañu kii di Aïda Mbodj tamit mu koy teniraat bu baax a mm-hmm, baax mm-hmm. Aïda Mbodj tamit bu ñu déggee ay kàddoom mu ngi naan bu baax participé wul benn yoon si dialogue bi ndaxte xamuñu lan moo wund boobu la woote ah, ndax mu ngi dem bay fàttali dialogue yi fii jot am ba ñu wootee dañoo ne woon si domaine bii la si domaine bii la te nee na bu leen ne woon carrément ñëw leen ñu waxtaan ndax Sénégal dafa nekk si ay jafe-jafe ñëw leen ñu waxtaan ndax lii amul ndax li manqué na nee na bu boobaa dinañ ci sawar waaye ñëw nañ waxtaan boobu te ni ah, amul ah, xamul moom dañ lay wundu ñu ngi ciy xalaat ay demee ay am ci wala leneen moom tamit mu ngi xamle ne loolu bokk na ci lu tax mu ne du du woote ji di xamle tamit ne Sonko mooy champion wu euh, champion wu démocratie sénégalaise loolu la loolu la wax hmm. Sonko mooy mooy champion wu Yewwi Askan Wi <laughs> loolu la fi ne kon cela veut dire que moom déjà xam nañu euh, fan la par exactement xam nañu position parce que am na yeneen yeneen kàddu mais kàddu yuñ si gën a mën a retenir mooy que ne conférence de presse am démb daal wax na lu bëri jëmale Sonko di ko di firnde la soutien bi nga xam te am na ko Sonko dem bay naan am na candidat yoo xam te ni si euh, législative dañ ko doon naan dem nañ ma nañ ko boole ak Sonko juste que Sonko na jaar seen ñoom fi ñu nekk ndax fa jaaree rek day tax di ko fa di ko fa xam ne moom Aïda Mbodj. dëgg la moom moom Aïda Mbodj comme ni nga ko waxee rek euh, fëddiliwaat na li nga xam ne mooy soutien. Mhm. li nga xam ne am na ko Ousmane Sonko moom nag euh, mu xamle sax ne nekkul politique kese. Mhm. moom moo leen boole xam ne loolu yëpp moom dafa jàppee Ousmane Sonko comme doom dafa jàppee Ousmane Sonko nee comme doom bu góor. Euh, bu tax kon dara bu ko laalee rek forcément kon da koy laal moom Aïda Mbodj ñëwaat si dialogue bi nag xam le ne yëguñ. ñoom nee na yëguñ dialogue yeewi yëguñ dialogue foofu it xam nga Barthélemy bi muy bi muy bi muy wax mbirum dialogue bi euh, nee na ñaar la doon ñaar la doon ñaar la doon waxal maanaam ki nga xam ne moom mooy euh, ndax Barthélemy nee na dialogue moom moo ko wate mooy maanaam dialogue léegi nee na moom ñaar nit la ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy nga xam ne moom mooy Khalifa Sall ak Ousmane Sonko kon nee ñaar la doon waxal bu waxee ñaar ñooñu nag euh, peut-être ay dem ba gis na ne ñaar ñooñu kese nekkuñu nekkuñu yeewi waaw ñoom ñaar kese dañu yeewi mais nag euh, ñoom ñaar it boo leen génnee si kii kii di Khalifa Sall moment boobu moo nekkoon conférence des leaders bu fekkee mbir mi janvier la woon Khalifa moo nekkoon président conférence des leaders Ousmane Sonko mooy nga xam ne comme ni ko ay mooy quoi qu'on puisse dire it yeewi moom moom moo fa moom moom moom moo fa kii moom waaw waaw moom waaw yeewi moom moom moom ñoom ñoom quoi qu'on puisse dire ñoom ñëpp moom moo leen ëpp kii moo ko ëpp euh, dayoo daal moo a waxee moo fa ëpp moo fa ëpp dayoo kon nag eh, Aïda Mbodj daal wax jooju wax peut être mën naa koy ña mën naa ci mën naa mën naa ci d' accord mën naa ci bañ a d' accord mën naa ci d' accord bu fekkee ne euh, Barthélemy def na ñaar ñooñu la waxal xaw ma nag ñaar ñooñu bu dee rendre ñu compte bu fekkee ñaar ñooñu retourné wuñu rendre compte ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, kii bi yëpp yow bi yëpp boobaa dañuy ànd ak Aïda Mbodj li mu wax kon kon mbir mënu engagé yow yëpp euh, président si kii bi mooy si si euh, kii bi ñu si forum bi ñu amaloon nee euh, na kii la mujjee waxal kii di Ousmane Sonko même si dialogue bi sax daa mel ni nee na laataa mu si wax ak président ndaxte li nga xam ne moom moo ko wax na ci ak ñoom eh. nee na wax na si ak ah, kii di Ousmane Sonko moom la mujjee mujjee waxal te dégg nañ tamit Ousmane Sonko di naan am na ñoo ne dañ may woo téléphone laataa ñuy dugg di wax kon daal jàpp mën nañu li ñuy a jàpp mooy instant ñoom ñaar ñu ngi sànnante ay xeer non doy na waar ñoom ay euh, euh, ñoom ñaar ñu ngi sànnante ay xeer bu ma dellu siwaatee wax léegi kon waxam bi daal mën naa ci ànd euh, bu engagé wul yeewi mën naa ci ànd bu fekkee ne mi dafa wax ñee te ñee mais bu fekkee ne Barthélémy Dias wax na ak ñële donte ñoom ñaar kese la waxal sax mais fekkee ñee rendre nañ compte moom mën nañ ne Yewwi mbir mi engagé na ko mën nañ ne kon Yewwi mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi engagé na ko conférence de presse xam ne euh, mtudi démb it waa kii amal nañ ko Yewwi askan wi xam nga ñu wax maanaam ne euh, li nga xam ne mooy euh, Yewwi fi mu nekk nii daal kenn bu mu yaakaar mu tas wala yooyu mais man de li ma gis mu tas laa gën a gis instant moom mbir mi tasaaroo coalition maanaam yéen ngeen bokk ngeen nekk ci benn kër bëri ku nekk ku nekk maanaam comme genre ñuy wujje ba pare ngeen di ngeen di bokk. benn ah, coalition loolu foog naa ne dina jafe. bu doon ñoom yeewi parce que ñoom tamit loolu moo nekkoon charte yoo xam ne tëraloon nañ ko. bu ba si ba eh, ku nekk demal boppam ku nekk demal boppam. kon jàpp naa ku nekk demal boppam su demee ba am fa jàpp ma ne ni foofu yeewi mënati na faa am ndaxte ku nekk day xëcc candidature ku nekk mu ngi xa candidat Khalifa Sall nekk candidat Ousmane Sonko ak keneen ak keneen. ba pare ngeen bokk benn coalition. ñoom daal instant bi di a jàpp mooy coalition bi li ko nar mooy dialogue bi. Eh? dialogue bi mu nar a tas euh, bi lee. dialogue bi ak itam am ñoo xam ne dañoo am dañoo am ay intérêt yoo xam ne peut-être dañ koy défendre tey. ku nekk di défendre voilà tey maanaam ku mel ni leer ne mm-hmm. dialogue bi da arrangé. Mm-hmm. parce que euh, mbirum euh, li nga xam ne moom mooy amnistie bi nga xam ne ñu ngi waxtaanee. te bëgg waaw bëgg na bokk ci élection ci élection présidentielle bar taxaw na fësalement ne moom du candidat wante Khalifa Sall moom mooy candidat ku si nekk day am ay intérêt yoo xam ne bu doon sax comme li ñu waxoon ku ne maanaam mën nga demal sa bopp mm-hmm. peut-être euh, bu ñu deuxième tour ki nga xam ne moom moo moom moo peut-être moom moo war a demaat ak ak ak benn candidat mm-hmm. euh, ci lii di kii bi ñee ñee ñee jàppale ko mais instant yii nii sax bu mel ni Barthélémy Dias wala kooku bu fekkee ne deuxième tour daa am wala yi ni mel gaw ma ne est-ce que ah, dina jàppale kii ak instant yi euh, classe bi commencé am seen diggante nii man daal Yewwi lii laa ci gis daal fi nekk nii tasaaroo laa ci gën gis que ne ñu que ne ñu àndaat donte nag démb ñu ngi jéem a defal nit ñi naan ñun duñ mos a tas duñu kii man daal fi mu nekk nii yoonu tas la de si mel ni Barthélemy dem na bay naan euh, toog si dialogue ñu amnistie kii di Khalifa Sall moo ko gënal ay euh, ku sa yaay sa yaay julaat effectivement dem na bay wax jooju loolu nag bu ko waxee cela veut dire que lay waxaat euh, de toute façon Yewwi yaakaar naa bu tasee tamit dina nekk benn gàcc si ñoom parce que dañoo waxoon Yewwi euh, benn mu benn coalition bu ñu créé la pour contre contre Macky Sall exactement mhm. loolu moo nekkoon lu taxoon ñu sos ko ngir xeex lu ñu wax mooy démocratie affaire yooyu yi ni kon mi ñu demee tey ba ne Yewwi day tas si benn dialogue wala juste que man waroon nañoo mën a def ku nekk comme dañoo ne ku nekk day demal boppam pourquoi pas ñu ku nekk ñu ñu conserver yow bi nga xam ne euh, téye nañ ko pare ku nekk nekk candidat am liggéey liggéeyam comme ni ñu mais loolu mën naa nekk mais dafay nekk loo xamante ni day jafe trop seen biir actuellement. Mhm. actuellement day jafe parce que ñoom ñëpp maanaam mooy ay wujje yi nga xamante ni am na seen biir. ku nekk di ku nekk di politique loolu la. loolu la xamuñu euh, kii di Khalifa Sall moom euh, ay intérêt fan lay mujjee parce que ñu bëri tam ñu ngi doon benn jour est-ce que ki si mel ni Ousmane Sonko ah waa parce que du ñu génn yeewi waaye jàpp naa ne Ousmane Sonko su génnee yeewi mooy que ni jeex na parce que ku ni Bougane même d'ailleurs euh, moom loolu la njëkkoon a kaas mu ngi doon naan yeewi c'est comme si Ousmane Sonko moo ko parce que même logo bi et tout logo Pastef la loolu moo nekkoon li nga xamante ni moom Bougane kaasoon na ko ba dem mm. euh, ñu bëri mooy Ousmane Sonko ma ne ku si mel ni Ousmane a génn Yewwi ba pare Yewwi nekkaat Yewwi avant. non instant yi de mooy li ma wax rek Yewwi tasaaroo moom léegi dañ gën a jege que ne que ne Yewwi continué waat comme naa di nekk te booy xool sax démb li nga xam ne euh, moom mooy euh, question question mbirum Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias booy xool ne waa ko waa Yewwi bëgguñ sax dugg développé ci li nga xam ne moom mooy euh, mbirum euh, Barthélémy Dias boobu ak ak euh, ak Ousmane Sonko effectivement ci Ousmane Sonko effectivement effectivement non loolu loolu la mën a def loolu loolu loolu la mën mën a def ci jamono joo xam ne ah, voilà non soutenir effectivement non effectivement affiché nañ seen soutien Ousmane Sonko par contre man li ma doon xaar peut-être dinañ si wax moom mooy clash bi diggante Barth ak Sonko mais booy xool dañ ko dañ ko éviter carrément kenn nanguñ liñ buñ daal li ñuy wax moom mooy yeewi daal lu tas nga xam ne peut-être lee la ñuy évoqué mais bugguñ ci xuus parce que loolu quoi qu'on puisse dire lu sensible la instant yi diggante mbir moomu nekk Barthélémy Dias ak ak Ousmane Sonko rek pour man mooy mooy tasaare kii mooy mooy indi fichier bi mooy effectivement te noonu lañ mënoon def nag noonu lañ mu ñu toog eh, di ko wax publiquement comme la leen sa la leen sa salaam salaam en famille peut être loolu lañ bëggoon adopté quoi man gëm naa ne mbir moomu ci lii nii nii yow fi lay jaar quoi tout ça parce que ñi nga xam ne dañoo pare côté Barth ak Khalifa dañuy kii nga xam ne tam Sonko Ousmane Sonko lañu bëgg a soutenir dañ koy wone déjà déjà ki nga xam ne moom mooy Aïda Mbodj affiché na soutien ah, ana bi mu pare léegi leer na peut être keneen nit koo xam ne Khalifa la faral wala Barth dina dina dem côté boobu bu yàggee rek mbir mi day day tasaaroo quoi ñu dem bay naan euh, bu ñu faagaagalaat beneen euh, candidat. ok xam naa dafa li a wax mooy comme ni ñu ko defee. def ko def ko Karim Wade peut aussi loolu lay bay ñu mu dal. si si kii di Sonko waaye jàpp naa ne lii ñu teg Ousmane Sonko su dañul fii ak si kanam euh, moom tamit da leen di si camp bi rek ndaxte du mën a bokk si élection yi su waat Sénégal aussi mooy tas ndaxte jeunesse bi. Euh, ñu si bëri taxaw nañu pare ngir xeex ngir Ousmane Sonko ba bokk ci élection yu ñu jëm te foog naa ni tamit bu ñu taxawee ni Ousmane nañ ko amu euh, ni euh, Khalifa Sall ak ku si ñaar mbooloo mi Ousmane Sonko am amuñu ko parce que ñoom bañ ne ba fii mu nekk naa li a sauver actuellement mooy amnistie looloo waral ñu bëgg ah, moom xeex ko Ousmane Sonko xeex la yaakaar voilà <laughs> ah, ba am bëgg ndax gëm na ne peuple peuple mu ngi derrière moom te gëm na ne peuple moo doole li nga xam ne moom mooy pouvoir quoi. mais même si ay waxam mu ngi naan am na ku ko ne euh, nga yor mbooloo bi nga yor pourquoi pas mënoon ngaa génne kii di Macky Sall mënoon fee jógee léegi léegi mu ne moom soxlawul loolu lu mu soxla mooy mu bañ a bokk si élection yi ñoom ñu dem euh, nit ñu votal ko mu mu ne moom loolu la soxla. d' accord Bour xam naa boo amul leneen loo dolli si wàllum politique plus tam si dialogue bi yooyu noonu ñu daal di euh, tëj ba beneen ba tey rek di fàttali nii suñu gaynde yi Lions dañoo amal match tey di jile suma juumul euh, mm-hmm. ñu ngi war a amal match quart de finale. Mm-hmm. quart de finale la ñu amal tey Sénégal euh, Afrique du Sud ak Algérie ñoom ñëpp nag ku si nekk mu ngi yóbbu place demi finale xanaa di leen souhaité waat bonne chance comme ni ñu koy defee saa si nekk rek ndaxte gis nañu Euh, ndam lu doy waar li nga xam ne am nañ ko di leen ñaanalaat aussi ñu gagné kii di Afrique du Sud ngir mën a dem ci demi-finale bi. waaw soxna Sel euh, di la jaajëfal bu baax kon di jaajëfal it mbokk internet yi ñuy euh, bàyyi xel di ñaanal suñu gaynde ndaw yi ñu am ndam ñoom ci ci match boobu nga xam ne kon war nañ ko jongante mm-hmm. wante it tudd nga benn match boo xam ne nar naa neex muy diggante Maroc. ak Algérie moo dafa nekk ñaari dëkk yoo xam ne dañoo nekk ci ay conflit conflit diplomatique d'ailleurs récemment rek euh, benn équipe marocaine euh, boycotté woon na euh, boycotté woon na Algérie ak yu demee noonu dem nañ bay waaj aéroport mhm. war a dem ñu finalement mu jéewuñ dem ndax incident diplomatique yooyu nga xam ne dafa yàgg ci diggante ñaari réew yooyu du ñàkk loolu dinañ ko gis ci biir te <laughs> ah, effectivement effectivement problème raciste bi voilà problème terme ñuul bi boo ma doon mas itam bu neex lay doon mhm. tey jii kon di ñaan suñu gaynde yi ñoom ci seen côté ñu am ndam comme ni ma di jaajëfal kon di jaajëfal mbokk internet yëpp waaw baax a baax si euh, développement yu am solo yu ñuy indil di leen jaajëfal également internet yi xam ne yéen a ngi ñuy suivre à suñuy euh, plateforme seneinfo point net seneinfo international euh, di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal suñu cadre di leen jox dig daje ginnaaw rek incha allah jërë ngeen jëf